defoon nag euh, juróol juróomeelu ponk dem siyaari sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam def aji makka ba ñëw nag macha allah ay rakkam teeru ko kër gaa nga fees dal macha allah ay tantaama nga fa ndax pape mooy dundee noonu ñii ñoo ko jëlee aéroport di sunu kilifa maam sang ak doomam Makuda Modou Mansour a ngi sama wet xale yaa nga kër ga macha allah Abdou Kane tabarakallah waaw sëñ Ousmane Seydina Ousmane di doomam mi ngi ci biir El Hadj nag mi ngi ci biir. ñu ngi taxaw fii ci station Kër Maguette bi pour nag euh, fas yéene dund ak mbégte moomu ànd ko Thiénaba TV ci kàttanu yàlla lépp lu mu fa ñaan yàlla na ko yàlla nangu ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam xolom bu rafet macha allah ak bëgg njaboot te lépp mu donnoo ko ca maam ya ak baay tey moo ko jural bis bii muy bis boo xam ne bisu am solo waaye duma ko denc di wax maa ngi remercier di gërëm di ñaanal monsieur Pape Demba Kandji tabarakallah ndax nag wax dëgg yàlla teral na famille bi yëpp wax naa ko face à face ko teral nga njaboot gi yëpp ndax sunu kilifa nga jël teral ko jëndal ko oto muy dawal nga yóbbu ko màkka nit nag foofu rek la man ak la mën a yem ak nit dem ba yàlla na yàlla dëgëral la na la woor ni képp ku askanoo ci maa jooja mbub moo xam alaaji Mukura alaaji Ousseynou alaaji Ibrahima ba ci alaaji Malick ma des Madinatu Munawwara buñ la xamee buñ la mënul kontaan nañ ci yow te ñu ngi lay ñaanal yàlla na yàlla yokk sa teranga barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam sëriñ macha allah kaddu yi rafet na ah, sunu xol sedd na parce que bi ma leen gisee man nga tax bi yàlla dogalee ma xool leen gis leen ngeen taxaw sama xol dafa sedd yal na yàlla yàggal taxawaay bi parce que ak bokk lii rek la te nag vraiment lii ak rafetal la ca rafetal nag dafa am solo ci lépp lu mu doon kon ñu ngi ñaan yàlla yal na leen yàlla bàyyi fi ngeen yàgg fi tey wér ci barke rasulullah parce que seen taxawaay mat na sëkk bi ma leen ma dara nit nag amul lu dul mbokkam ca mbokk mbokkoo yàlla moo wàcce mbokk waaye da dañuy mbokk mbokkoo nit mbokkoo nag nit a koy def mais mbokk yàllaa koy def te mbokkoo ngeen pap kon macha allah barakallah jërëjëf kon incha allah noonu la ñuy fas yéene dañ koy ànd ak moom gunge ko mu dugg ci jumaa yi Canaba julli ñaari rakka su génnee nag dem këram incha allah bu ko defee incha allah ñun ñëpp ñu bokk sargal ko ak moom yàlla yàlla guddal aw fanam te muy wér ci moom di wér ci ñun barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw mi ngi noonu ima euh, sunu sunu kilifaa ngi noonu Pape Madiodio macha allah kaala gi yàlla na yàgg ci boobu du ma ne yàlla na ràpp kaala gu jóge ci yonent bi du ràpp yàlla na yàgg macha allah euh, boo demee kër ga tante yaa nga fa yaay yaa nga fa rakk yaa nga fa mag yaa nga fa ñëpp nga fa rek ngir yàkkawli ko loolu nag jikkoom la ak uuf gum nu uuf macha allah wan ni tey mooy suñu baay tabarakallah mbokk yi nag ujaaj yi bari na waaye sunu ujaaj ngi ñëw na macha allah yal yàlla gën a guddal fanam te lépp lu mu fa ñaan yàlla na ko yàlla nangu ndax wóor na ma ne bu nangoo ñun njaboot gi ñoo ci jëkk jël suñu wàll yàlla na ko yàlla dogal barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam di ñaanal nag soxna Xadi Seen macha allah mi nga xam ni wax dëgg yàlla moo ànd ak suñu mag jàppale ko ci zahir jàppale ko ci baatin dawul daayul te nag bis bu neex nag bis bu ne mu neex amul waaye bu neexee kenn xamul bu naqaree kenn xamul bu dépasse amee kenn xamul bu dépassé may kenn xamul waaye ku ko séqal nag borom jom la kon tey teraanga yëpp ak ngan gi moo ko moom ajaratu xadi seen moom it yàlla nañ dund ba bu déwee ne nii ma teeroo pap ma teeroo ko ko barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam Thiénaba TV la ñu àndal di gërëm nag directeur Alpha Sarr ndax bi ma ko wooyee rek la ni ma pap maa joojo moom bëgguma dara raw ci mi ngi noonu yónnee na caméraman te noonu lañ koy àndee incha allah ba nganaleem ak sargal beeg yëpp ci kàttanu yàlla àdduna bi di ko seetaan loolu nag jar na jaajëf waaye diggante maam ñàkkur Sarr ak maam bay loola démb woon kon Pape Ma jooja ñaan gi aj gi yàlla na ko yàlla nangu barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi noonu loolu nag am na solo lool wax dëgg yàlla dëgg dëgg lii moom lii moom xalaat bu rafet su ko defee rek ñu ngi noonu mooy aywa lépp lépp macha allah aywa léegi يحيطون بسيد من إمي لا ما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يمر اسمه العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين من الغيب فمن يكفر بالتاخذ بين البداية فقد من صلى الله عليه وسلم آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin kontaan nañu Abdou Dieng Saala billaahi ni mu leen doon limee walaay damaa lim yëg nañ ko yëg nañ ko damaa lim yëg nañ ko de lim rek di lim rek walaay lim rek damaa lim ba sonn ana dàllam ana dàll yi teg ko nii min waaw eggul kër ga eggul fii lañ jógee jumaa eggul tabax naa ko ñeenti yoon waaw waaw bu ci nekk wër naa ko juróom-ñaari yoon wala yàlla xam fu ma dugg rek ñaanal ci la wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay baax na بالله فقد استمسك بالفرس الوثقى فسأل الله رسول العليم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما شاء الله ربك رب العزة وسلام وسلام وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله اوكي جاي مسلم مسلم سلام كل مسوي كنت soxna ci benn chaise laa bëggoon boo xam ne ngeen toogoon ñu ngeen di ziar par benn moo gën a yomb amul chaise soo paate xali seen toog ci ko chaise mu toog noonu salaama mama doom dala kula musa way kontaan ko monsieur le maire. arrière la tudd Pathé nga ñëw nii nga ñëw côté bee Pathé. muslim muslimina salama ala walina yene timi jarana wayi laxat fasa malaba yenen malaba malaba yonent Yàlla Mamadu laxat fa saman la bayanan wa daafa wa zaaru wa man raxafi zaaka du rabbi zaaro yanan wa in kunta lam nabqiya diyaaro bi xubi rasulillahi narju jiwaaro yanan wa kullu muxibin fal xabibu law las boo ku xeex ak yanan doona جنان داخدونا سيدو لولينا يا رنت بجرنا وي أليس الذي أزل مفاعل والولا يا رنت بجرنا وي بما نس من أي كتاب وما تلا ينن وانا يدانا في المكان الذي اختار التام ولا جاخن mulaa yonen loo mat mulaa wa safaatu tuboo ku xeex ak yonen wayam si Mamadou yaa leen gën mooy Mamadou wax solo الحسين ممر الحسين والحرمين نجل مكة كي تاب لتائبين وتائباتي محمد الأمين كن ففداو ففداو ففداو ينتي الله محمد أيا كان يخون يمنس جاجت كن كي حبيب wa ummi wa nafsi ñun ñi ñëw law kaana yuftada ku xeex ak yonent bi doona arafana ko yonent daqi doona ki ci Medina ne xaway ndax mboolam te yaa ko waral yonent bi yaay sunu wasilatu xaqan inna rahman yonent yàlla Muhammad moom teewam gaag faddu gaayam taggu Mustafa du fi jóg diinam du man suux gasal Quraan yàllaaw Mamadou Abdallah ya neexa way kii moo jëkk a def lépp moo tax yàlla bindu lawla uma xala xala siyaawu yàllaaw yont yàlla daaw daag ba atam bu neex ba tedd nga kañ naan isaaqa moom la ñu boole jox ko doomi abdilaay ja yàllaaw mustafa samaam yu baax ya ñoo di jant yaay seen fajar yaa saydi yaa rasulallah yàllaaw ku xeex ak yoneen doona ki doonaat jinaat waay waay madina turasal madina turasal madina turasal yaa laq xayral xalqi yaa foo waay madina turasal yaa jara waay madina turasal maa jooja dem na ba ñëw madina turasal yaa laq xayral xalqi acca defal ni madina turasal yaa madinatu rasul waay madinatu rasul yaa laq gayra xalqi yaa boy yaa jara waay maa jooja dem na ba ñëw ku ci defal yi di nga dem madinatu rasul waay madinatu rasul waay madinatu rasul yaa laq gayra xalqi yaa boy زينة رسول خير الخلق يا ابو ويلا المدينة رسول مدينة رسول واي مدينة رسول يا لك خير الخلق يا ابو مدينة رسول يا جروي مدينة رسول ما جو جدم نبنيو مدينة رسول يا لك خير الخلق يا ايوا يسا نخمي waaye sa ndox mi waaye sa ndox mi suufam si waaye tàndar may madina gën a ne rutuban weedag ni ilala madina turaso yaa jala waay maa joojatam na ba ñëw acca defu leen lii loxo sa ndox mi way sa ndox mi way suufam si way tàndar may madina gën a neex rurban wa dang yaa jara way maa jooja dem na ba ñëw ku ci defal yi di nga madina turasol رسول مدينة رسول يا لك خير الخلق يا فو مدينة رسول يا جلوي مدينة رسول ما جوجت من بنيو مدينة رسول يا لك خير الخلق يا فو أيوة يا أم تاخي مدينة أم لمقم يويه واي مملا أي خلمته أم سرور يا مويله loxo ca kaw mel ni ki moom laay xel maate mm. maa joojo dem na ba am taaxi madina toog am lampam yooye waj moom laay xel maate am soror ya mooy leen ku bëgg a dem waaye mel ni ki weer moom lay xel mate waaw waaw sunu mag yi dem na ba ñëw taaxi madinatu am lampam yooye waaju moom lay am sooroor ya mooy maa jooja dem na ba yee moom lay xel am sooroor ya mooy way way tàndar may Madina gën a neex rutuban weeteg mi tàndar may Madina gën a waay ku weddi laaj ko alaaji maa joojo tàndar Madina gën a neex rutuban weeteg mi tàndar may Madina gën a waay ku weddi laaj ko alaaji maa joojo tàndar Madina gën a neex rutuban weeteg mi tàndar may Madina gën a neex ku weddi العيش ويتنر ميمننا قرندي رتبا ويتني تنر ميمننا قرندي كوادي لاج كوالاج ممور تنر ميمننا قرندي رتبا ويتني تنر ميمننا قرندي كوادي لاج كوالاج ممور تنر ميمننا قرندي رتبا ويتني تنر ميمننا قرندي ji taala tàndar may madina gën a neex tut ban weetal na ba ñëw tàndar may madina gën a neex ku weddi laaj ko alaaji taala tàndar may madina gën a neex tut ban weetal ni tàndar may madina gën a neex ku weddi laaj ko alaaji maa jooje tàndar may madina gën a neex tut ban weetal maa lu mag gëm na ba ñëw wew tàllar may ma dina gën a neex du ban weet ak nii tàllar may ma dina yàlla na yàgg aca def la nii tàllar may ma dina gën a neex du ban weet ak nii ay daw nga saafa daw nga marwa sànni jamra yaay taxaw arafat wax lii da ngay dem waay daw nga saafa daw nga mal ma jooja taxaw jamra ya taxaw arafa daw nga saafa daw nga mal aj daa nangu sane jamra taxaw arafa ku bëgg a dem taafa daw nga mal jooja daw nga saafa maa jooja daw nga saafa maa jooja sànni jamra yaay taxaw arafa yal na yàgg ay maa jooja taxaw arafa sànni jamra te ñëw na tam ni jamra wa taxaw aram rak yaa ngi sargal san ni jamra yaay taxaw aram tey ñu sargal la taxaw arafal yaaw san ni jam waxal san ni jamra tey ñu sargal la san ni nga jamra baab taxaw aram aleykum waaw lii avant-goût la di ca jaayu li wér te wóor mooy dinañ bi bañ defe ne dañoo màndi ndax moom mii nag lañu am mooy sunu maajooja mooy sunu alaaji Makura tey mooy alaaji mooy alaaji Ibrahima mooy alaaji Malick kon bu jógee màkk dinañ mel ne ay dof ndax lii rek la ñu xam ñun maam maajooja mbuub lii rek la am yonent bi jërëjëfe maam Ëmbëri Ndak Seck sëriñ Mamor ñu ngi lay ziar damay wax ne wërsëgu jàmbur ku cay voyagé war koo gërëm sunu bàyyi bala avant ñuy dem yowmal xiyaam ñoom ñëpp siyaar nañu yonent bi te li ma wér te wóor mooy ñun ñëpp dañuy dem siyaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax loolu sunu maam moo ko liggéey waaye seen maam nangul ko ko kon su maa jooje jugee Makka ñu tudde ko suñu maam masa maam Momar Taala ni woon yonent bi am na ma xasaan am na am gusaan wax dëgg yàlla dootuñu dootuñ fi nekk nag kon maa jooja say rakk a ngi nii defe naa bi nga wàcce aéroport mi ma fekk kër Yaaba Diop sama xarit bi daan jaan jóge Màkka tey di ngalam waaye bi ma jëlee sama téléphone woo ñëpp yaa yaa ngi nii sama yaay ñoom a ngi yaa Sina ngi yaa Numbe ñoom a ngi yaa Absa Wade ñoom woo ñoom awandee la lu ko waral sa sa xol ci njaboot gi yaay yi ngay teral ba mu daj teral rakk yi lépp lu alaaji alaaji mukkuraak ay rakkam nu ñu melal ci njaboot gi mel nga nu ko raw te loolu yaakaar naa su ma ko waxee du ma ci am bàkkaat kon fa tabaarakallaa sa kaala gii du ma ne yàlla na rab ndax kaala gu jugi ci yonent bi dootu rab waaye yàlla na yàgg ci bopp bi sunu xol sedd na guy te ku ñëw fekkuñu fii fan yi di nga xam ne sunu xol sedd na loo fa ñaan yàlla na ko yàlla nangu monsieur le maire ñi ngi lay nuyu defe naa sànq ci jumaa ji bi ñuy bëgg a départ da nga ni ma bul dem de ma ni ma la dañ koo ñeme yow sa ujaat lañ la doon andil ndax ku ne xam ne sa diggante ak maa jooja ba dara dara ndom ba tànk boole leen xaalis boolewu leen mais cofeel ak mbokk ak cosaanu démb moo leen boole te ba nëgë ni tey la gën a rafet waaye nga jàpp ko di ko teral ci biir di ko teral ci biti nit nag ku jàpp kilifaam wala nga teral kilifaam moom nga teral wax naa sànq ci bi ci oto bi ma ni euh, Demba Kandji mënatuñ koo fay amul ku sant mbuub ku ko ëmbelul cofeel ndax ñun nag noonu la ñuy dundee Mouhamed Mboub mi ku ko teral wallaay teral nga njaboot gépp rawatina nga jël suñu xalifa teral ko jëndal ko oto muy dawal nga yóbbu ko màkk foofu la teraanga yem waaye monsieur le maire noonu ngeen di te wóor na ma ni xam naa ne Demba danaa jiitu rek waaye sa xel a ngi ci woon loolu moom man mën naa ko xam parce que nit da xam nit diggante nit ak nit kon yow it ñu ngi lay ñaanal macha allah léegi nga jóge ci robe rek toppaat suñu ginnaaw ñàkkul di nga ci am ay kaddu yooyu sànni ñu jox la ko nga sànni ko ndax sa diggante ak maa jooja xadi seen lépp yow du kenn nag lépp yow la parce que suñu mag ji bi nga koy guddil di ko bëccëgal di ko muñal kenn musa xam ndax Pape ñàkk na dépense xaalis seen musoo musoo ñëw ci sunu baay yi kalaame ak Pape te nag ñu nekk xanaa nañu am tuuti jafe-jafe mais kenn xamu ko kon tey yow lii lépp waaye maa ngi ñaan kaalaam gi yàlla na la ko teg bu ne heure bii moom yàlla nañ ànd macha allah eh, eh, déedéet ki mooy ankay kon nag euh, ma ma déglu ma ñu ne tekk tuuti rek su ko defee am nañu ziar seegul waaye ñu déglu kàddu yi monsieur eh baal leen ma rek ngeen génn ma ñëw taxaw na bala ngeen a yëkk seen kaddu rek ma sànn kaddu yu gàtt ngeen jël seen kaddu ñi ci des mën a ñëw ziar ñi ngi sant yàlla bu baax waaw nee na mboolem ku fi teew tey képp ku fi ñëw tey wane nga ni tey man man bëggoon nga maa sax far wan far bëggoon a maa far wan waaw Ibrahima Mboup ngi toog Ibrahima Ngale Ibrahima waaw jege sil waaw amul chaise Ibrahima yaay magi xale yi Pape nee na mi ngi lay sant bu baax. waaw ñoom après ñi ngi ñëw ña nga ne la toog di la xaar nee na mi ngi sant yàlla bu baax julli ci Sayyiduna Muhammad manu ziyaari woon kon képp ku fi ñëw rek Pape daal nee na képp ku fi ñëw sant na la gërëm la ndax lii nag kii tey day aye. nee na kii tey day aye. ëllëg keneen aye rek. bu déwénee yàlla na ci ñeneen topp. yàlla xam na ne bàyyiwuma kenn ba mu demee Màkka. ba mu demee Màkka ñaanal na ñëpp. Medine laa jëkkee. ci sang ba sallallahu alayhi wa sallam. fa dem Màkkatal Mukarram. tawaaf naa ko ñeenti ñeenti yoon. nuyoo naa ko. ma agsee. bi ma demee mun naa tawa jóge sànni jamra tawaaf naa. bi ma sànnee jamra ba ñëw tawaaf naa. bi tawaafaat naa ko ñeenti yoon ma ñëwaat Makka tawaafaat. waaw dem naa Uhud ci Seydina Amza. dem na Uhud ci Seydina Amza. dem naa masjidul xiblatayni borom ñaari so xubaa waaw moom it dem naa fa. dem naa mun a dem Arafat dem mun a dem Arafat. demit Musdalifa fu ma taxaw rek. nag. yàlla xam na ni. yàlla xam na ni. ñaanal naa ñëpp ñaanal naa ñëpp. waaw yàlla xam na ko. El Hadj Talla Diagne mii sëñ Mamour ngi toog bàyyi mos na maa wax sëñ Talla Xaar ni ma ngusaan hmm. ma ne ko sekk ma ni ma tey xoo ma ëllëg waaye di nga am lu baax sëñ Talla Xaar ma ko waxoon ko fàtte te moom sëñ Talla Xaar kon su monsieur le maire taxawee fu ma taxaw billaahi wallaahi taalaahi ñaan naa leen barke yonent bi waaw kon damay ñaan yàlla na fi yàlla dooli jàmm dooli ko ci réew mi defar dooli ko ci bokk gi ku fi ñëw rek sama ko sedd na ci yow waaw ku fi ñëw ñaanal naa ñëpp ndax Seydina Mohamed kare bi demee Arafat mbooloo bi ni tirim ñëpp ni leew ku ne toog damaa jékki-jékki rek dugg ci Seydina Mohamed foofu mel ni luñ bëgg a toj. fan la foofa. Arafat Arafat. Arafat laa tagg Seydina Mohamed. garab dañoo xàllangu ci suuf. barke yonent bi ñëpp kontaan. Mamadou Sall jël ma jiw ba ma jidda réew ñu xam defal ñu lu nekk teral ñu. waaw fu nu war dem dem nañ fa fu nu war a ñaan ñaan nañ fa. kon lépp lu ñaan yàlla na ko yàlla nangu ci barke Sida sëñ Mamoor Mori Ngoné kontaan nañu monsieur le maire dañ lay bàyyi ak yàlla man naa li may ñaan lépp lu ne ci sa te muy sa bëgg-bëgg ak ku mu doon yàlla na ko yàlla def ni nga ko bëgg man nag yàlla nu boole te it wax naa ni monsieur le maire yàlla ma boole ak moom ba bu ñu le maire yëpp di Pape muy géelu monsieur le maire man su nanguwul waaye dama ko dinaa ko wax te teel a waalu gën a ay te doo ko jël ci kanam. waaw suñu maamoor. mag. mag. man nag sama bopp laa xamee munuma ma ne ko lu tax munuma la ngay gis moom nga bëgg wax te du jeex waaye loolu mooy bëgg a dal Pape man mi tolloon naa fa damay wax rek kon kon ñu déglu sëñ Maamoor waaw. waaw waaw. ki nga xam ne du jiin njaaga te mooy njaag. alaaji Demba Kaji. du ma ko fàtte ilaa mi dini fu ma taxaw ci màkk rek ñaanal naa alaaji Demba Kandji ndax Demba Kandji li ma defal mënuma koo lim mënuma koo lim dem naa ba sama bët yëpp yàqu gisatuma mu faj ma ba may xool nit ñëpp loolu ma jëkka defal bi docteur yi ñëwee fii dañ ma yaa si dara gënu koo baax fu ma neex dem mu leer naa ñu kaar moo ñëw fu muy ñëwloo ca Dakar fa la may ñëwalee ay yére mi ngi nii ci néeg bi mënuma ko oto attanu ko moo ñëw ko ma oto bees tàq bu jël ay millions. ni ma daal yóbbu màkk nag andi def ko kon alaaji Demba Kandji yàlla sut ay waajuram aw fan barke Seydina Mohamed kontaan naa ci moom maa ngi ko ñaanal yàlla ne ñëpp xam ne alaaji Demba Kandji au ma pem dama koy bàyyi ak yàlla te rëccu moom dañu àndoon nekk école di jàngandoo maa ngi moom te xam na sama compétence ci école xam na ko xam na man jàngkat laa woon waaye xaritam laa woon waaye géwélam laa parce que suñu directeur su ma saan am ngénte dañ koy notal ku nekk 200 suñu rang di jeex ba mu ëgsi dinaa ma maa jooju am loolu ci deuxième tuyau de griot de l'école loolu jàpp ba dëgg mu jàpp jëmm ji amoon na yéen a yóbbu ma màkk billaahi wallaahi taalaahi waaye yàlla gis nañu yàlla def kon dañuy ñaan yàlla yal na yàlla mottali yëpp kontaan naa maa ngi ñaan Modou Abdoulaye Modou Kandji dañ ma maa joojo maintenant tu fais parti de la famille de Kandji loolu yëg ci famille Kandji nga bokk léegi alaaji nee na surtout. acca sëriñ Maam Mor nee na bi ko asalaamaaleykum wa rahmatullah. nee na ñu ngi sant yàlla bu baax. julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. nuyu nag bàyyi seexu canaba. ndax lii lépp nag ndamam la. ndax ci kayam la amee. ak ñi weesu ñëpp. ñëpp koy bu baax. ñu ngi koy nuyu waaye ñu ngi koy ziara. di ziar suñu kilifa gi. ziar nag suñu kilifa gi. El Hadj Pape Mboup. El Maa Joojo Mboup. jóge ci ka nga xam ni jóge nag nga xam ni ñun ñëpp ñun ñëpp mooy suñu sang mooy sunu sang muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ñaan yàlla aj gi mu aji woon ñaan yàlla aj gi mu woon mook ñi ko bokkal ñëpp mook ñi mu ko bokkal ñëpp seenu aj ñëpp seen aj yal na ko yàlla nangu yal na ko yàlla nangu ci biir ak ci biti ci biir ak ci di ñaan yàlla di ñaan yàlla képp kuy ab julit képp kuy ab julit te sa wàll nekk fa rek te sa wàll nekk fa te mu ànd ak gudd fan te mu ànd ak gudd fan jàppal ni ko jëli jàppal ni da nga ko jëli ci biir ci ak ci biti ak ci biti Pape ñu ngi lay sargal bu baax Pape maa jooja ñu ngi lay sargal bu baax a baax kàddu gi nag kaddu nag kaddu gi kaddu gi nag kaddu gi nag su paree ngeen ziar bu kaddu gi daanee nag léegi mu daanee ngeen ziar allah. kaddu gi nag kaddu gi nag. kaddu la kaddu monsieur le maire la. El Hadj Talla Diagne. El Hadj Talla Diagne. kaddoom du gudd. kaddoom guddul. waaye dina tegtalu. waaye dina tegtalu. te ku ko dégg ku nekk. te ku ko dégg ku nekk. di nga xam ni dëgg la. di nga xam ni la. Euh, Pape. <coughs> monsieur le maire nee na monsieur le maire nee ngi lay ziar bu baax mi ngi lay ziara ci barab bu tedd ba nga jógee ci barab bu tedd ba nga jógee may lanu tuuti muy muy barab boo xam ni muy barab boo xam ni moom mii miin na ko moom de miin na ko ci biir ci biir ak ci biti ak ci biti su ma nee miin na ko su ma nee miin na ko nag dem na fa ay yoon dem na fa ay yoon su ma nee miin na ko na ko yóbbu na fa ay nit yóbbu na fa ay nit baren jii rek baren jii yóbbu na ñaari mbokkam yóbbu na ñaari mbokkam yoo xamante ne nii yoo xam ni daa jaay gerte daa jaay gerte jaay ngooñ jaay ngooñ yóbbu leen yóbbu leen kon kii kii kat la kon kii liggéeykat la kon fa nga demoon kon fa nga demoon jëmm ji min na ko jëmm na ko muy sa xarit lool nag muy sa xarit lool ngeen bokk lépp ngeen bokk lépp yàgg ànd yàgg ànd ci biir ci biir ak ci biti ak ci biti waaye yàlla kese boole leen nag yàlla kese boole leen fa nga demoon fa nga demoon da ngaa jëli woon sa maqaama rek